Bali conteneur la Wally moo ko wàcce fii ay jouet xale yére dàll mag xale whatever bu ñu koy commencé séddale dinañ ko wax comme ça ñëpp xaj nañ ci vraiment conteneur la bu mag a mag a mag from Los Angeles loolu leen ku ne la ko mën waaye ku nekk nii ah Lille Pro nag xam nga la moom foo ko fekk nag moom. xamal na wax dëgg yàlla saako xaalis baa ngi à côté jege. yii mën na mi dat yee te te te te kenn du Wally Ballago moom fit de. karasullaay kii karasullaay koo yab daa fekk day nelaw de waaye bu yeewoo yëngal kenn day moom ci réew bi don ngi nii Wally Ballago Seck commencé. Eh, vraiment chapeau. merci beaucoup li ci des nag dañ koy continuer ci kanam.